alhamdulillahi fi sirrin wal i'laanin wal abdulillahi imalillahi min shaani falhamdulillah maani la haa'un wala alifun wal abdu haa'un wa hamzun summa la maani لذلك الجمع قد صار الكمال له فرقا وجمعا وجمع الجمع في آن صلى عليه إله العرش مجتمعا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 di leen ci ñaanalit yàlla waaye di sàkku ci nit ñaan ñaan yàlla lépp luñ ko jaamu mu néew mu bëri yàlla ñu boole nangul ca matam ga ak mbaaxam nga na mu toll te bañ ñu ko nangulee ci suñu matadi gi ak manqué gi mën a tooñ di ko ñaan rëcc rëcc yu ñu yëg ak yu yëgut yu ñu tey ak yu ñu teyut yàlla ñu boole labal ci géeju njéggalam bi yàgg bi jaay sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam ñu del si waat ak yéen ca kàttanal yàlla lu jëm ci seen fàttaliwante ak yéen ndax yàlla moo ko bëggee nun te digalee ñu ko nun ci alquraanul karim ne wa zakir fa inna zikra tanfaul muminin nañuy fàttaliwante ci sunu biir ndax fàttali gi danañu jëriñ nañuy fàttaliwante ci sunu biir ndax fàttali gi danañu jëriñ yeneen bi daan na wax mu ne ay jullit bu ñu dajee ci jotaay ba jotaay wa jeex ba jotaay wa jeex te fàttaliku woon ci seen biir lu leen jëriñ ci wàllu yàlla nee na jotaay boobu jotaayu toskaay ñu bañ suñ jotaay bi bokk ci yooyu la jot mu mel ni lu ñuy fàttaliwante mooy muharram bi ñu ne mooy ñun ñëpp yàlla ngi ñu fi wàccee ci kaw suufam si ngir dara dara joojee nag mu tax mu wàccee ñu fi war nañ ci tënk sunu bopp bëgguñu borom bi subhanahu wa taala su ko defee yàlla bindul ñu lu dul ñu jàmm waaye wàcceewul ci kaw suuf si ci ay ngumbaay ak ay fo afa xasibtum annama xalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turjaun ndax dañoo njort ni yàlla fa ñu fee wàccee ngir ñuy fo ak ngumbaay ak puukari déedéet dafa am lu tax mu wàccee ñu waxtu bu nekk nag doomu aadama bu nelawee ba yeewu mu yëg wala mu ñàkk yëg lenn ci dundam mi ngi wàññeeku te bàyyiwu ba te wéykat bi da koo wéy muy Youssou Ndour nee na bu la xasaaraw boobu la gis dem na beneen a ngi ñëw xamula lu mu ànd kon bis bu xas dem rek wéy na beneen ay ñëw kon fexe la góorgóorlu ba bis yi dem ci say fan mu doon yoo xamante ne yaa ngi labal sa bis yooyu ci jaamu yàlla ak topp yàlla li waa ji wax rek ni nag maa ay ayaamu fi tayina tumdi alayna suma tumdi bina sabilul xalqi kulluhum fana fama ahadun yadumu lahu lbaqa yuqaribuna sabahu ila almanaya wa yudnina ilayhin almasa walam yuaqiru llahu nafsan ida jaa ajaluha wallahu xabirun bima taamal mbokk yi bis yi ñu ngi dem ndax bis yooyu di dem bés bu nekk ndax labal nga ci sa jaamu yàlla ndif ndax yaa ngi ragal yàlla ndax yaa ngi tënk sa bopp ci fi nga war a tënk sa bopp ndax yaa ngi bàyyi xel rek ne dund gi lu mu neex neex neex lu mu yàgg yàgg yàgg bis daa jot da nga jugee ci dund gii dem ci beneen dund te dund googu la yeneen nag dafa laaj nga préparé ci yëbbal bu mag te li ngay yëbbulu foofu dam lay jëriñ mooy ragal yàlla kon su ko defee mbokk yi ñu bàyyiwaat xel bu baax ci àdduna bii ñu nekk xam ne àdduna moom ñett ko symboliser mooy ad dunya adduna bi ñu nekk ta xurru ta adduna bi dafa doon loo xam ne day wor boo ko woree mu wor la boo ko worut mu wor la moom adduna mooy ta xurru ta ta ta adduna day day lore fexeel ba bul nangu adduna lor la addunya ta murru adduna day wéy ñi la ëppoon capacité ëpp la xam-xam ëpp la cër ëpp la alal nekkoon nañ ci àdduna dem ba yaakaar na jekku nañ ko àdduna njuy leen tey jii ñu ngi ci ron suuf bàyyil xel na yow it ëllëg yaa ngi ci biir suuf de kon su ko defee nañ góorgóorlu waat luñ fiy dajale muy poñeti di jaru ko matu ko bu ñu dund yitteel bu ñu wërsëg yitteel bu ñu kër yitteel bu ñu woto yitteel yooyu yëpp yàllaa ko wàcceel doomu aadama muy teraangaam dana ci jot àlla kulli xaal na la leen yitteel mooy fexeel ba neex yàlla fexeel ba bokk ci jaam ñi nga xam ne yàlla fari ni tiitoo te loolu dara du ko may mbokk yi lu dul nga ragal lu dul nga fukk lu yàlla lu dul nga doon nit koo xam ne kuy sàmm nga ci fa ci fànn wu nekk moo tax benn waxkat dafa wax ma nii almaru yajma wa dunya mufarriqatun wal umru yazhabu wal ayyamu taxtalisu wa nahnu naqbitu fi zulmati laysa biha badrun yadiu wala najmun wala xabasu nee na ñun daal ñu ngi doon ay nit yoo xam ne fu ñu toll ñu ngi dajale waaye adduna na fu mu toll mi ngi tàqale gis nga waxtu wu nekk loo dajale ba yëg ne am nga ko bis daa jot nga dëddu loolu nga dajale woon nga tesaare waat waxtu wu nekk boo jàppee na dañ fiy sax bàyyil xel ne ñu la gënoon na yàgg ñu ngi fii te jógee ko nañ fi kon su ko defee ñu ngi dund ci jamono joo xam téye nañ jamono ji mooy jamono ji sonn nañ ci jamono ji te jamono jooj ñu téye mooy ci dafa lëndëm amuñ làmp bu ñu fa leeral kon lu ñuy dimbale rek mooy ñu dënkaat suñu bopp ci yoonu siraatal mustaqim kon daal àdduna bi mbokk yi wax ju yomb te muy jëriñ mboolem mbindéef mooy xasirul amal nañu gàttal mébét yi waxtu wu nekk yaa ngi mébét te li ngay ëpp doole gi yépp doo ko fekk kon xasirul amal nañu gàttal mébét yi waaye wa asliul amal nañu yéwénal jëf gi dinañ ko yéwénal ndax jëf gi ci la ñu yàlla subhanahu wa taala di at ku yàlla yër sa jëf nag gis ne nu mu war a mel melo ko toskare dana la ñeel kon nañu góorgóorluwaat ci jëf yi waaye wa xaadiru baxtatal ajal nañu bàyyi xel ndaw li nga xam ne yàlla foo ko yónni mu dikkal ñu te buy ñëw du tàggoo tam mooy dee des fois nga xëy ñu tàggee la sa benn mbokk nga ne xëy moo ne léegi laa déggante moom téléphone day am des fois nga xëy mu tàggale sa mbokk nga ne xëy moo ne démb rek ñoo bokk toog naan ataay yooyu yëpp day am su ko defee fa tabarakallahu nañu wëttandiku ndaw loolu yàlla di yebal ci ñun te buy ñëw du ñëw ci mbetteel rek lay ñëw kookee di ñëw ci mbetteel nag war ngaa waajal sa bopp ba buy ba buy ñëw ci yow du rus xaal bu mu la mënti fekkee doo am gàcc doo am kers si sa kanam ko loolu nag dara du ko may lu dul lu dul dëgg lu dul seet seet kon wa xaadiru baxtatal ajal nañu watandiku ndaw loolu yàlla di yónni ci ñun te du tàggu waaye nañu fexe mbokk yi ak wii ñu nekk muy at wu bees wii di atu jullit yi ñuy dugg na doon at boo xamante ne mbokk yi dañ ci buddeekoo ci bàkkaar ak yàlla dañ ci buddeekoo ci naafeq ak pen fen dañ ci buddeekoo ci tappale ak euh, mbóosóor dañ ciy buddeekoo ci juba ji yooyu yëpp na doon at boo xamante ne dañ ciy sóobu guddee ko ci xeetu mooy yàlla yi na doon at boo xam ne dañ ciy sóobu waaye tuubal ci yàlla suñu xeetu bàkkaar yi ndax bàkkaar yi moom li muy bëri bëri lu góor ga wax rek balay bu ne na rombul bi nga tey def ko ak bi nga bi nga def guddi ak bi nga def bëccëg yii rek mooy bàkkaar kon ñu tuubal yàlla ci xeetu yi waaye fexe jébbal ak yàlla subhanahu wa taala sunu borom ndax amul benn mbindeef moo xam ne duy def bàkkaar déedéet mbindeef yëpp dañuy def bàkkaar waaye ñu ko yenente bi waxee rek ku gën ci kiy def mooy ki nga xam ne bu defee bàkkaar reconnaître ne def na bàkkaar tuubal yàlla kullu bani aadama xata wa xayu xata'in xatawal yenente bi neen doomu aadama yëpp ay mooy yàlla waaye ki gën ci ñii mooy yàlla mooy ki nga xam ne bu mooyee delluwaat boppam ci yàlla góor gu tedd ga sëriñ Moustapha Sy Al Maktoum daan wax mu ni mooy yàlla mooy yàlla gi lay xiirtal ci delloo sa bopp ci yàlla moo gën yàlla moo gënal yàlla topp yàlla bu lay xiirtal fé féeteelu mooy yàlla goo xam ne da ci jële yëg-yëg ci sa diggante ak sa borom moo gën topp yàlla goo xam ne da lay indi la réer féeteelu moo tax su ko defee at-taa'ibu mina zanbi kaman laa zanba la ki def bàkkaar ak lu bàkkaar bi rëy rëy rëy fekk yaa ngi tuub rek dafay mën di defoo bàkkaar kon daal fa tabaarakallaahu amul ku dul tooñ amul ku dul def bàkkaar waaye nag na doon bàkkaar yu woyof te na doon bàkkaar yoo xam ne boo ko defee tuubal ko yàlla bu ca topp mooy biis bii nga xam ne ñu ngi koy dëgmal muy nga asura muy tamxarit mu man ni suñu Sénégal gii aada yëbbu na leen bañ ciy dugal yu ci bokk ñu ciy def lu defu wut ñu ciy wax lu waxu wut dem ba ciy tuumaal sax yonent bi dem ciy tuumaal borom xam-xam yi loolu lu mat a bàyyi xel asura muy tamxarit bis la boo xam ne du bisu bànneex mais bisu sant yàlla la ak bisu naqar du bisu bànneex mais bisu sant yàlla la ak bisu naqar sant ga mooy lan mooy yenent yàlla aadam yàlla ngi ko baal ay bakkaaram ci yow ma asura mu yenent yàlla noox alayhi salaam yàlla ngi teeral gaalam ga ci yow ma ashura mu yenent yàlla muusa yàlla ngi ko dimbale mu labal firawna ci yow ma ashura kon su ko defee yii nii bu amee te ñuy kole ci yenent yàlla muhammad ñun ñuy xeetu yonent bi kon yoon la ñuy sant yàlla ci teraanga yooyu yàlla defal naw la yonentum yi waaye bis la boo xam ne laajul yenn yi comme nu ba Sénégal yi di defee toggu cere yeeg bomb geeg ganaar yeeg misu yeeg bëy yeeg nag yeeg xar yeeg lépp mu neexalee jaadata jaadata def ci reer gi poson xasan lekk ko ci guddi gi ci la muy guddi juróom-ñeenteel te ñun Sénégal ñu koy defar cere yi waa ku mel ni sëtu yonent yàlla Muhammad ci bis boobu ñu tooke ko ci mu dee ñàkk bakkanam ñun bis boobu del si ñu ne dañ koy feeti di fecc di saraxoon di tëgg di ngumbaay est-ce que loolu jaarul na est na ci lislaam déedéet euh, bisu Ashura bu mu delsee mooy juróom euh, mooy fukkee la fan ci la ñu fexe génnee Xuseynu Makka yóbbu ko Irak ci yoon bi yéeféer yi dab ko daldi koy rey rey ay nitam bopp bi ñu jëlee ko Bagdad yóbbu ko sax kon kii ñu ngi ko rey ci bisu juróom-ñeenteel muy Xasan Xuseynu ñu ngi ko rey ci bisu fukkee ñu nag ñu koy def feet boo xamante ne dañ ciy tëgg dañ ciy fecc dañ ciy taasu dañ ciy sol yëre jigéen góor yi jigéen ñi di sol yëre góor est-ce que loolu dagan est jàll na ci xeet boo xam ne ñu ne yonent yàlla Muhammad mooy suñu référence mooy suñu lépp te lii lépp gannaaw yonent bi la am gannaaw Aboubacar la am gannaaw Omar gannaaw Ousmane gannaaw Ali gannaaw gannaaw Muawiya Yazid daal bu mu ñëwee ci la def lu ñaaw lii est-ce que loolu jàll na ñun ñun jaaduwut bis ba bu jotee naan seeti seeti seeti seeti seeti ku feebar rek euh, pastel pastel say bët ak tusngal say bët euh, mu nga nangam ak nangam ak naafile yeeg sarax yeeg cere yeeg mbomb yeeg yooyu yëpp dara du ci sun lépp ay xurafa amul benn téere bu mën a ñëw saxal ne loolu lu wér déedéet li ciy sunna daal mbokk yi mooy koor gi ñuy koor mooy yow mu ak yow mu loolu moo ciy sunna à part ça loolu leneen du ci sunna mooy juróom-ñeenteeli fan bi ñu oor ko ak fukkeeli fan ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog mu demee Makka fekk yéefiri di oor euh, ñi ñu mu laaj leen lan moo waral ngeen oor biis bi ñu ne ko ñun de dañ koy oor ngir sante ko yàlla ndax bis la boo xam ne ci la yàlla teraloon diw ci la yàlla teraloon diw ci la yàlla teraloon diw ci ay yenent Muusa mu ngi noonu yenent bi ne leen ñun de ñoo gën a yell ngir ñu oor ndax ñun samay collègue lañu waaye ëllëg déwén bi bu ñu fi fekkee man danaa oor sax juróom-ñeenteel bi ak fukki yi déwén ba fekkul fi yéen yàlla Muhammad yàlla dogal mu dund waaye kenn ku nekk daal lii sunna ci bis bi rek mooy bisu juróom-ñeenteel bi nga oor ko ak bisu fukkeel bi à part lii leneen du ci sunna changé reer togg reer bomb ay cere rey ay ganaar xumbaay bég déedéet bis bi du pour loolu ëpp na loolu kon su ko defee ñu jullit ñi nañ leen xamaat tey wax nit ñi dëgg waxkat yi ñu ngi ci internet bi ñu ngi ci télévision yi ñu ngi ci réew nit ñi nag dañoo euh, Sénégal dafa doon réew moo xam ne ku leen gën a dëgër bopp amut ndax waxkat yi wax nañ ba maar ndeysaan wax nañ bay bëgg a dee mais am na ci loo xamante ne buñ ko seetaanee lu baax ci ñun kon su ko defee loolu nañ ci bàyyi war xel bu baax a baax bis la boo xam ne daal bisu sant yàlla la waaye bis la boo xam ne bisu naqarlu la doonul bis boo xam ne dañ koy fecc dañ ciy ngumbaay dañ ciy bég déedéet bis la boo xam ne dañoo war a fàttaliku di naqarlu li ñuy def ñaari si tuyint yàlla moo xam yu tedd yi muy xasana Hussein kon lii daal moo doon sama xarit waaye à part ça lii leneen luñ la ci mën a wax rek wérut te du dëgg seen mbokk la seen soppe seen xarit Mouhamed Taïb Cissé di wax rek ne in uridu ila al islah ma stata'tu ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu